benn fan gannaaw inauguration train express regional ñenn ci askan tambali wuteli wutali gaar ya train yay bàyyeekoo sa gar gumak bane ba ne sa xolu ndakaaru nañu fa dajeel te jota a jëfandikoo teer bi daanaka kàddu yi ben la. dama na woon dama koy essayer mais vraiment tey bi ma si mom moom kontaan na diirewu ma si yoon wi comme ni ma def di yendu di fanan ci péage bi balaa nga yegg si léeg-léeg 14 heures doo mën a añ doo def guddi ay 22 yegg. vraiment contente naa si train bu baax a baax. Tëngéej laa jógee ñëw di xol nak li nga xam moy li ñu défar bijou bi ñu défar ci train bi comme c'est une première au Sénégal vraiment on approuve l'administration on approuve le président li mu def vraiment c'est génial. amul secousse bon train bi dina daw normal tu fais ça le trajet en 30 minutes bi aussi Dakar kon donc man gisuma lu gën a neex waaw bu doon si bi je vais faire deux heures de temps. set na rafet confortable. c'est confortable nous nous soigneusement calme da ngay dugg sax mel ni ci avion nga ne doo dégg benn bruit dara du la gêné Au parleur baa ngi wax gaar boo toll ñu wax la gaar boo ñu wax la ñu wax la distance yeeg yëpp. man lu ma gisul lu ma tegul sama loxo lu ma yéegul du ko gëm mais vraiment nous ngi ko ci remercier na gën a wut ay partenaires na defar train yi ñu dem. oui loolu da ngay noppal sénégalais yëpp noppal sa bopp nit ñi xoolal léegi malaat sax boo jiyee ci péage bi doo dem malaat yu bëri ci péage bi la ñuy dee ah ndax péage bi da nga ciy dugg doo dem doo dikk xam nga lool c'est pas bon même bu ñu mënoon a yokk wagon bi nga xam ne médicalisé mën nañoo jëlee ay malaat teg leen si métro bi ñu indi leen. naam kaddu yu rafetlu yi jib na waaye mu mel ni ñi nga xam ne ñoo di mag ñi maanaam troisième âge yi laaj nañu ñu gën leen a bàyyi xel. tout li manqué mooy mag ñi ñu oo te mag mag la dañu war a am ay privilège privilège yoo xam ne dañu ko war a jox ñi yow toog ci xaar ci train bi mar mag mënul toog 30 minutes une heure de temps naanu ah waxuma ndoxi sachet yi mais boisson la ñuy jox ñu naan bu baax. retraité nañu mais ñooy continuer de yor kër gi bon nañ ñu dimbali nag defal ñu exonération aussi ba nga xam ne ñun ñi nga xam ni euh, pension la ñu yore tout court. ñu mën di def abonnement di dem di dikk parce que vraiment man xam naa ne abonnement lay mujjee ji mais bu nu ko wàññilee aussi dina baax trop. ñu ngi leen di delloo njukkal nag parce que gis nañu mais des na mag ñi am na lu ñu war a wax bu dee si bu dee waa CTR la ñoom ñi ñu invité ñu àgg ci président la gis nañu lim ci defal mais dafa des magu 80 ans 88 ans 89 ans mag la bu ko yàlla maye ak bu ko yàlla maye muy man di dem di fekke lii am na soutien. boo xam ne ay ñoom dañ ko war a def ci mag ñooñu. waaye itam xoolaan njëgu ticket yi yokk yoon yi bokk na si li ñuy sàkku boole kook ñaax askan wi. terew la war a set waaw ni mu sete noonu nañ ñoom ñun tam ñu ngi si dugg ñu tam nañ ko setal ba mu set waaw ku fa dugg ku fa indi gerte naan na ngay lekk si biir bi bu fa indi ay ona naan na ngay lekk si biir bi ay ay ay kiiw yooyu ay jën ku ko bëgg na dem jëli oto lu oto nga dem def ko si xam naa na ñu wàcc train bi mu confortable ñu yàq. waaw Sénégal ñu ñun léegi dañ bëgg a yàq te buñ koy yàqee suñu alal la waaw te nit ñu njëriñu nit la ñu koy jëriñoo di voyager di ñëw donc war nañ ci veiller ñu ñëpp mu nekk suñu alal pour ñëpp pour ñu ñëpp. suñu alal la nañ bàyyi toog jël sa loxo teg ci ay coussin di dagg yooyu xam nga. objet yi nga xam ne aussi day tooy day yàqu nan éviter duggo ci dugal sinon boo amee sa benn bagage ambale ko bu baax a baax ba mu rafet jekk boo ñëwee boo ko tegee sa kaw sax oh, oh, kenn du la wax dara. chaque jour nga am 2000 francs de aller-retour bon du ñëpp ko mën avec la avec la cherté de la vie bon ak population du ñëpp am quoi donc war nañ ko mën a yo gën a bon même pour ñu koy à 500 francs boo jógee Tëngéej ba Dakar bon mooy tane quoi. nañ ko yóbbu ba Ndar dem ba Kaolack comme bu njëkk ba eh, xam nga da nga yeew añee ji benn dëkk yeewu ñëwaat bon euh, région yi am na ñi nga xam ni euh, région bu nekk ak sa meññeef yi fay yi fay sax. jamono yooyu bu train bi ñëwee man parce que yàgg naa si dugg jamono yooyu bu ma ci duggee dama daan gis ay maire ay paa yi nga xam ne ca gox benn dëkk la ñuy dëkk génne jaay li ñuy jaay si la ñuy dépense te loolu c'est très important bu buñ ko xeeb way way day day indi koom-koom bi am na ñu nga xam ne ña nga toog ba train bi départ ba léegi euh, arrêté ba léegi liggéeyatuñu te si yooyu lañ daan liggéey dem dugg ci àll bi am na ñi nga xam ne dañ koy génn waa Dakar ko gis yeneen régions yi duñ ko gis mais yooyu dañ ko war di continuer. keneen si mag ñi moom li lukki bëtam daanaka àggul sax si train yi. xam nga lii lu bees la lu ju daloo buy gaal jéeri li ñu koy waxee ci wolof da nga dégg saxaar gi saxaar saxaar la c'est la fumée mais gaal jéeri booy doo bi ba ñëw nag comme dalal dañ ko ah ba ñëw di xool si di yër si naka la tëddee. waaw dem beeg dikk bi waaye bi ma ñëwee rek ah ma xool nag ni man bu ma jàggul tubaab jànguma anglais du ma xam dara du ma man am benn loo nga xam ni war naa koo leerlu loolu laay njëkk a euh, seetlu war ngeen bind rek ci langue wolof wala pulaar wala séeréer wala soninke langue langue nationale quatre vingt pour cent ci réew mi dégguñu tubaab kon nag boo leen di waxi tubaab sa li ngay wax du egg ndax ji ko koy waxal dégguñu ko boo tax nag da ci boole loolu ndax dee nañu euh, benn réew mënta suqaliku gëréem sukkandikul ci ay lakkam xaa xam nga Senghor dafa wax ne le di vous du donner recevoir ca daje ba la ngay yóbbu ak la ngay jot loolu loolu loo yóbbu boo amul sa langue nationale amoo sa boor amoo sa batit xam nga culture mooy batit ci wolof boor mooy histoire soo ko amul lan nga yóbbu ak la fay jëlee. lii di train express régional distance bi muy daw diggante Dakar ak Diamniadio mu ngi toll ci fanweer ak juróomi kilomètre téeméer ak fukk ak juróomi doomi aadama mën ko jëfandikoo bés bu ne njëg yi mu ngi toll ci lu ko dalee ci téeméer jàpp juróomi téeméer.